www.sangatv.com. Mass euh, moo ñuy doog a fekk si ci euh, plateau bi tey dañoo yéex a tàmbali moo tax euh, yeewu gym heure bi ngeen koy doog a am Mass ñu ngi lay nuyu merci d'être là Olympique Club nga jógee comme chaque lundi ak mercredi tey nga ñuy proposé. waaw jërëjëf Ba Cheikh tey ma indi renforcement centre du corps tey ma commencé ci abdominaux yi donc semaine jour yi di ñëw. Hmm. ñu ñëw ci métier ndigg yooyu bu defee hmm. ñu fexe ba kenn bañate am. ak petit <laughs> waaw daa am ñoo xam dana sonal waxee secret sama benn ŋaalit ŋaalitu tànk bay metti ni wax leen ko <laughs> waaye nee nga renforcement ñu may xoolaat <laughs> ay sama ŋaalitu sox sox de laa dugg see ñu ne ma la dal ma leen ŋaalit bi lu koy metti ku ma ko daggal ba jël yóbbu damaa xam ñàkk rapport rek je fais des étirements et puis damay dem Olympique Club. jërëjëf que dama gën a am forme. par rapport ak euh, euh, les périodes périodes précédentes. da ngaa bees si si si damay dem fii ci ci ci salle bi juste. bu njëkk yow da ngay dem Olympique. Maasiya may gis. jërëjëf Bacha moo tax tey ni nga commencé. Maasiya may gis ñëpp xam nañu ne tey euh, am na différence donc tey ni nga yeewoo tey ute na donc tey ñëpp xam ne yaa ngi sport rek sport rek daal moo moo waaw. moo wóor moo baax. sport rek wóor Mado soxna Mado jërëjëf. <laughs> kon bu fekkee Pape Samba Thiam pare na xam naa nga jaarale ci abdominaux yi xam naa Baye Cheikh tey moom kenn mënu ko téye. moo tax kenn mënu ko téye kon ci jabar yi Pape Samba <laughs> Pape Samba ay pare rek ñu daal di dem gaaw voilà jërëjëf donc ñu daal di jàll directement au sol voilà donc rapidement avec les talons décollés option avancée les mains au niveau de la taille regardez 4 pour chaque côté 3 2 et un, je change de côté. Donc genou coude, je croise. Voilà, ça c'est l'option avancée. Sinon, vous gardez le pied au sol. Là, c'est l'option facile. Et si vous êtes à l'aise maintenant, vous tendez les jambes pour plus d'efficacité. Allez, on va progresser ensemble. Vous passez deux sur deux. Un, vous revenez. Deux, échangez. Toujours genou court. Là, vous combinez le haut, le bas du ventre et les obliques. Même chose. Allez, un peu plus intense. Maintenant, vous croisez gauche et droite. À chaque fois, vous twistez à partir du milieu de la poitrine. Je rappelle l'option. L'option est là. Quand vous avez les genoux fixes, là, c'est l'option facile. Voilà, option avancée avec les jambes tendues. Là, on sollicite davantage. Vous faites des séries de 12. selon votre niveau d'entraînement. on reprend les doublés. et Même chose. Encore deux. Une dernière fois. Vous relâchez. Maintenant, le bas du ventre. Levez. On va isoler ici le bas du ventre. Le haut du corps est fixe. Genou ne bouge pas. À partir des hanches levées et posez doucement. À partir des hanches. Toujours le bas du ventre qui travaille, aspirez fort le nombril pour bien protéger le bas du dos. Même chose, encore deux. Alors, niveau 1, vous restez là. Niveau 2, regardez. Un peu plus avancé. Extension, jambes alternées. 8, 7, 6, toujours le bas du ventre qui travaille. 4, 3, on va bientôt isoler. 2 et 1, vous relâchez, vous posez Le haut du ventre, crunch. 1, 2, 1 et 2. Cette fois-ci, on isole la partie supérieure. Lentement vers le haut, là vers le bas. Même chose. Accélérez le mouvement, c'est parti. Crunch. Up, down, up, Même chose. Là aussi, faites des séries de 8. Encore. 4, 3, 2. Une dernière fois, relâchez, récupérez un peu, enracez. La respirez un peu. La respirez un peu. Là, vous laissez le corps absorber le choc et on mettra encore plus intense. Alors, dernière ligne droite pour vos abdominaux. Même chose, combinaison. Et vous posez. la c'est l'option facile, je rappelle. Option avancée, les jambes restendues. Et vous revenez. Dernière ligne droite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et une petite combinaison pour finir. 4, et 1. Maintenant, regardez la combinaison pour finir. C'est parti. Une fois pour chaque côté. Vous revenez au milieu et vous relâchez. Même chose. Un, croisez, Deux fois vers le milieu et relâchez. Encore deux et ça sera tout. Up, twist, twist. Deux fois vers le haut. Une dernière fois. Let's go. Up, twist. Deux fois vers le haut. et deux, relâchez doucement. Alors, venez face au tapis. Genou au sol. Là, venez en pose de l'enfant et relâchez tout. On remonte. Ou bien relâcher les abdominaux. Les mains derrière, là, étirez les abdos. Respirez. Voilà, vous revenez. Bloquez à part de la taille. Et poussez-la en sur l'autre Et relâchez les obliques. Même chose, changer de côté. Revenez relâcher gentiment. Enroulez vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Même chose vers l'avant et ça sera tout pour ce matin. Alors relâchez. Bachir. Merci Baye Samba. merci Pape Samba. loolu na ko yóbbul bi. non il faut que ma wane tapis bi pour wan leen ni télé bi li ñuy jël yëpp. dañuy taxale bi damay soox. oui wareel tapis bi yëpp dafa jar a wane pour Youssou wut ci solution demal demal demal waaw kay tapis bi suñu kër lañ ko jëlee parce que ñun dañuy taxale rek. Mhm. mu ngi nii. télé yëpp du ñu laal tapis yi bu ñu def espoir xam nga lii c'est pas commun pour def gym. waaw lii maanaam boo nekkee sa salle moom mën nga ko utiliser. Ah. waaye boo ñëwee ci télé exemple salle dañoo taxale rek dañoo taxale jël tapis yi nekkoon suñu kër. ñëw lal ko fii nii waaw du yoon na war naa mën a gën a rafetee nii daal. voilà war naa war naa mën a gën a gymé daal. voilà loolu sa message waaw massa massa ci ci ci <laughs> na la woolu jëndal la tapis. <laughs> massa xanaa neex na alors quel sera le message balaa ngay dem mass waaw Baye Cheikh comme ni nga wax donc renforcement dafa am solo euh. Euh, bañ a topp cardio bi rek cardio bi rek nee naa la nit moom euh, foog ngay boole renforcement mm. ak aussi cardio bu baax a baax donc lépp war a équilibré wu mm. donc euh, ma fekk si leen léegi ci combat démb wane na ko donc euh, wax naa la fi ne euh, mm-hmm. euh, dijj dëgër ko gën. dijj dëgër moo ko gën. abal ma 5000 ba sama. waaw al ko waaw jox ko kay. mais xam nga xam nga waxoon naa la. fi dama koy waxaat. Mm-hmm. gis nga euh, dugg ci saal jàpp say muscle pompe ko ba mu toll nii barigo. Mm-hmm. amul njëriñ. muscle dafa war a am dëgër ko gën. dafa war a am qualité. da war a travailler qualité yëpp. da war a vitesse bi travailler résistance bi. travailler puissance bi travailler endurance bi. bu fekkee da ñëw travailler minuscule minutes. Uh-huh. bu bu bu minutes nga dugg nga am problème bu toll ni màggal. Mm-hmm. Mm-hmm. donc moo tax euh, qualité minuscule nga war a travailler bàyyi sax. voilà en tout cas c' important merci beaucoup Mass ñu gërëm bu baax rendez ak yow mercredi prochain. Euh, sax waaw gannaaw gannaaw suba nga dellu si ci suba gi pour euh, yeewu gym ñuy gërëm Olympique Club comme chaque lundi matin ñoom ñoo ñuy jox yeewu gym 9h19 mooy doog a jot et leen ni tamit ñu ngi